ñu weddi tuuma. gannaaw bi Abibulaay génnee àdduna ñu bëri dañ ne Ama Baldé jàppale wu. waaw loolu ma Abibulaay la xam nga tey du ma jàppale Abibulaay sama deret la. Abibulaay sama deret la xam naa fu ma toll si man bu baax a baax. man nekk man maa war a jàppale Abibulaay di toog si média bi di wax. non non non parce que man Abibulaay dunduñu loolu ànd ñu démb ànd ñu barki démb ànd ñu bokk tey dañoo ànd comme ça kon wax na ko ko solante yére ko nekk dama war a taxaw si média mooy loolu loolu sama loolu loolu ku may sikk ni dama si loolu parce que nit ku nekk li na doon doon doon la man nekk ma nit koo xam ne dama war a taxaw si média bi kii noonu yàlla yoreewu ma noonu waaye tey xëy na tamit yàlla suñu borom yàlla suñu borom lépp suñu borom la abulaay abulaay kenn ah, du dëddu na ñu koy waxal loo xam ni lu kii la moom mooy danañu seere comprendre